CEDEAO mu jël décision bi mu jël nii UEMOA bi nga xamante ni bokkul CEDEAO moom tamit di ëppal ëppal lu ne day jël ay décision <laughs> donc ce qu'on peut comprendre mooy que c'est la France qui est derrière cette décision là la France est derrière cette décision c'est un peu caricatural Aliou xamul ah. Aliou li Pape Matar wax jar na bàyyi xel ah, ah, booy référé woo ci wàllu diine mm-hmm, mm-hmm. amul place daal amul ne kii buuru màkk la absolument wala kii euh, kii buuru Sénégal la mm-hmm. moo tax man la yaa ngi def amalgame te oustaz xam naa dina la ko leeral non non euh, Pape yow yaa def amalgame Aliou Sow fu muy waxee du foofu donc il faut ñu jóg ci benn affaire jarul en jarul yuuxu jarul machin il faut que ñu def benn sacrifice liggéey sur les dix prochaines années bu ñu liggéeyee sur fukki at yii di ñëw liggéey laa wax nag waxuma ay liggéey sàcc xaalis waxuma ay liggéey di transfert ay xaalis yi ci bitim réew waxuma liggéey di lu ñu am dem yóbbu ko ci seen compte bancaire yi wala di jënd ay kër wala dépenser vous ne verrez jamais ces gens venir ici dépenser ñun a jekk gën a jekk-jekk ñu koy gis tous les jours mu ngi ni mooy la légion française alors mooy la légion da ngay partage avis boobu. du tey parce que xaw ma ndax histoire bi xam ngeen ko c' est vrai que Pape Matar boobu booy nga woon. waaw waaw dañu koy dënk rek parce que yaa ngeen di fàttaliku euh, Bob Denard euh, donc yooyu yëpp la woon yoo xam ne moom mooy continuer ba tey. Aliou saxaar bu jibee gaar day cornet rëmtëm bi dëmb la pour cornet la rek nit ñi xam ne existé nga Aliou bàyyi leen loolu. Sénégalais nag yaakaar naa ne c' est peuple endurant mën nañoo muñ torop mm. ce qui s'est passé hier askanub Sénégal toog nañu lu bëri ñu koy muñ te man li ma ci gën a neex ci fànn boobu Pape Matar moom moo di ne léegi dañ leen won ne avec tous vos milliards avec tous vos millions tey jii loo leen mun a wax safuñu jox leen ñu ñu lekk ba pare romb leen fi dem votel ñi nga xamante ne moom ñu ne. le peuple a assez souffert ils en ont besoin yeewi askan wi la ñu wax nañ ñu yeewi ci dans les idées mais également dans le travail. mais c'est inconcevable magistrat buy doog a génn léegi léegi nii magistrat bu paree nii génnee école am di waaj dem liggéey moom am na indemnité huit cent mille francs prime judicature mais ngeen defee loolu c'est normal mais loolu loolu xel mënu ko nangu te enseignant ko jàngal day te enseignant ko jàngal mais enseignant day toog liggéey ba retraité du am kër mais kii jàngale wax ñoom lu ñu lay wax mooy jàngalekat yi dañoo bëri Aliou Sow mais mais dañoo bëri mais suñu population dañu bëri impôt am na suñu population dañoo bëri mais impôt yi am na tey jii fii ma toog nii doomu Sénégal bu ne ca Grèce mhm. moo ma yónnee message ne ma ñun Sénégalais yi ne Grèce mhm. xam nga Grèce amul ambassade du Sénégal mhm. passeport ay at a ngi nii mënatuñ ko am passeport passeport passeport sénégalais parce que ki koy defar Italie la war a jóge ay at a ngi nii mënuñu ko am ce qui fait ñoom mënatuñu ñëw mënatuñu dellu tey ku ñu dof dof ba ñëw Sénégal gi boo defa naag doo dellooti yooyu la wax ne réew mi waruñu di ko fàtte parce que ay ci ay priorité la bokk on n'a pas également d'aller à l'école pour koy wax sànq daan ñoo xam ne demuñu éducation ah, bi ñuy yor boo leen gisee da leen di naw da leen di respecté c'est ça saraxule yi mais bu yëpp ñoo bokk même même même bool. non bu ñu nee éducation imagine teen nit ñi dem gàddu seen ay paan ak seen ay bouddon dem ci teen boobu di root wala pompe jàmbaar di pompe di root koñ bu nekk dañ ko fa samp xam nga dafa am benn vidéo Ali daal bu ma gis mhm. mu ne heureusement am nañu teen mais ndox mi di génn suñu robinet yi tubaax bi ñoo ñu koy jaay te fii la ndox mi di jóge xam nga su ko waxee da nga naan mais kii li muy wax dëgg la de. surtout que constitution da ko tere parce que constitution moo ne. Hmm. les ressources du pays. appartiennent au peuple. Hmm. Euh, euh, ressources ndox bi ci ressources yi la bokk. ak est-ce que xam nga yan question la ñu waroon posé. finalement boo déggee li Macky Sall wax lii. da naan man sax dama tiit waaw man tey man su ma nekkoon président de la république kon man. man est-ce que dama nar a changer avis. parce que man finalement. Ah, nee dafa am jinne bu nekk biir palais. bu nekk biir que ki ki hmm, am jinne bu fa nekk. mais ki di wax ndax ku ci nekk ci ñoom. suñ la falee avant ñu lay fal bi ngay dagaan baatu askan bi li ngay wax. ak soo duggee biir palais. da ngay soppeeku man dama ne dafa am benn jinne boo xam ne soo dugg see daf lay def. yaa am na lu xew. jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak euh, seen programme Walfadjri keppaar gi dellu si na fañ waroon a laaje dëgg moo doon loolu aéroport kenn du fa dugg yorub saak dugg ci avion te xamuñu lu ca ne noonu la nit mën a duggee ci saxaar gu mel noonu yor jël wax ji euh, jàpp ko yóbbu ko gis nga limi li muy nar a jur pap mooy la doomi Sénégal ñoo xam ne dinañ am tiitaangeeg jël sax terre bi finalement nit ki bu demee di jël terre bi dina am comportement boo la koy jëlee mais tey ki nga am dugg ak ci terre bi déjà yow boo yoree sa sac xam nga xooluñu la ne ci biir sac bi pourtant sac bi lu ne mën na cee nekk lu ne mën na cee nekk kee yor si woo def ci njamu maam boo xam ne ni peut ay juróom la ko yóbbu mais ko kaste bu baax mhm. tey bu tuuruwutoon day àgg comme li nga wax kon cela veut dire loolu am na li nga wax la jartul àgg fenn mhm. gis nga fa mu amee ci saasi mhm. lañ ko waroon a rek euh, conscientiser bon bu ko jëlee comme aliment rek mën preuve ba mu fi tuuroo lan lañ koy dóor. décision bi bu dee jël nañ ko ce sont les pays francophones maanaam ay Sénégal ay Côte d'Ivoire ak euh, président Guinée bi nga xam ne dama ko jàppee booyu Macky Sall ñoom ñoo teg seen i. déet kay Bissau déet waay. bien sûr ñoom ñoo manœuvrer pour pousser CEDEAO mu jël décision bi mu jël nii. UEMOA bi nga xamante ni bokkul CEDEAO. moom tamit di ëpp ëppal lu ne day jël ay décision donc ce mooy que c'est la France qui est derrière li Pape Matar wax jar na bàyyi xel booy référé woo ci wàllu diine mhm, mhm, mhm. amul place daal amul ne kii buuru Màkk la absolument kii euh, buuru Sénégal la moo tax man la yaa ngi def amalgame te oustaz xam naa dina la ko leeral non non euh, muy waxee du foofu non c'est donc il faut ñu jóg ci benn affaire jarul en jarul yuuxu jarul macha il faut que ñu def benn sacrifice liggéey sur les dix prochaines bu ñu liggéeyee sur fukki at yii di ñëw liggéey laa wax nag waxuma lu ñu am dem yóbbu ko ci seen compte bancaire yi wala di jënd ay kër wala dépenser vous ne verrez jamais ces gens là venir dépenser ñun on est dépendant. presque lii di tudd naan Wagner c'est une armée de mercenaires armée de mercenaires bu gën jekk jekk-jekk ñu koy gis tous les jours mu ngi ni mooy la légion française alors mooy la légion française étrangère da partage avis boobu. du tey parce que xaw ndax histoire bi xam ngeen ko c'est vrai que Dakar day corné rëmtëm bi dëmb la pour corné la rek nit ñi xam ne existé nga Aliou bàyyi leen loolu sénégalais nag yaakaar naa ne c'est un peuple endurant mën nañoo muñ torop hmm. mais seen boolu muñu kaay suufeesee rek ñu wane ko te anam gi ñu koy wanee nag du neex ki nga xamante ne moom lañu jàkkaar loolu fas yéene ko koo wan et c'est ce qui s'est passé hier askanub Sénégal toog nañu lu bëri ñu koy muñ te man li ma ci gën a neex ci fànn boobu Pape Matar moom moo di ne léegi dañ leen wan ne avec tous vos milliards avec tous vos millions tey jii a wax safuñu jox leen ñu ñu lekk ba pare romb leen fii dem votel ñi nga xamante ne moom ñu ne le peuple a assez souffert ils en yeewi askan wi la wax nañ yeewi ci dans les idées mais également dans le travail. mais c'est inconcevable magistrat buy doog a génn léegi léegi nii magistrat bu paree nii. bu bu bu bu génnee école di waaj a dem liggéey. moom am na indemnité huit mais nga defee loolu c'est normal mais loolu loolu xel mënu ko nangu. te enseignant ko jàngal. mais enseignant day Aliou Sow mais mais ja mais dañoo bari mais mais suñu population dañu bari impôt am na suñu population dañoo bari mais impôt yi am na. tey jii fii ma toog nii doomu Sénégal bu ne ca Grèce. Mhm. moo ma yónnee message ne ma ñun Sénégalais yi ne Grèce. Mhm. xam nga Grèce amul ambassade du Sénégal. Mhm. ay at ngi nii mënatuñ ko am. aja jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen programme Walfadjri seen émission keppaar gi dellu si na ak euh, tuuti retard bi yoon du beaucoup de retard euh, di nat euh, boo moytuwul avant dernière émission ci ci ci ramadan bi bu ñu paree ci ramadan bi nat jëlaat suñu horaire habituel yi wala sa dépend xëy na bi tey changé ñu heure yóbbu ñu 16h 17h wala 18h 19 sax ndax moom mooy chef des programmes wala adjoint nga rek da ngaa bëri buzz damaa bari buzz rek wuyu ma. waaw man kay maa ngi xalaat yóbbu leen minuit deux heures de matin. minuit deux heures du matin. waaw ah loolu temps la de. <laughs> Moustapha màtt na moom avant rek xew moom daa màtt. dama xam du ci bokk rek. <laughs> mais Oustaz. waaw Oustaz ñu ngi lay ziar. Eh, xayr yow euh, da ngay mos arab wala léeg-léeg wala. ah man kay. wala. <laughs> kii dinaa ko bett. waaw kii moom. kii il faut ma woo da ngay noppi rek. parce que li li li li Moustapha def moom. waaw gisuma ku ko fi nar a def. xam nga nit ki boo ko def dinaa la bett rek bettatu la bett bi lay fàtte. <laughs> man woo ma jot ma rek problème <laughs> vous avez atteint la boîte vocale <laughs> de. boobu la ma may. waaw ma ne alors ne ko léegi tareel saa bi Sa Ndiogou naan ki ngay woo mënoo koo jot. mais Oustaz ki ngay jàngal ci daara ji ba mi ngi mokkal. ah gars yi nee nañu de sa waa ji day day layam layam tariwul ba léegi. ah mais dig dig na gars yi suba nag. kaafiruuna bi aju. waaw nee na ah, suba daal ah laa tax ba du ah waa waa joko noo mujjee ak moom <laughs> waa ko tari démb sidaat ni mu ko waxee moo neex nag bi tey dinaa leen tari saar woo xam ne du ko mën <laughs> tagg boppam ma ne ko bisimilah ba mën na ko rek déedéet ba penalty la def <laughs> moom daal ba mu eggee ba mu eggee ci wala maa ba tumba maa ba du la wax léegi nag booba euh, char kii mi ngi sama nopp yi di wax léegi mu pare ma ne ko très bien kontaan naa léegi ma tëj rek am ku ñëw di jëkkul ñëw ne ma mais yow déggoo saay de ma ne ko alal ah, la mu ne ma abatum bi waxu ko de abadu la waa ma ne ko ah ah na ko mu ne ma déedéet léegi rek siraat ko dégg dañ koo capturé envoyé ko <laughs> ma toroxal nga ma ci dëkk bi ah en tout cas nga def ay jéego un mois ñu jàngal moom wax nga a non moom ku tarde nga suba du bi mu war a tari de laay commencé naan ko may teg di teg ay saar rek waaye léegi turu yàlla doyal ma doog a de ci la ñeemoon may ma ñett Ah, ah. Ah, ah non ne ko juróom kii xalaat kii yaakaar man. wax ko juróom la njëkkoon def xalaat de. da ngay yaakaar yëpp ay xalaat kay la juróom yi daal xam naa mën naa la koo jox. parce que yi ci des day ëpp. <laughs> allahu rahmaanu rahimu. xam nga fi mu koy jëlee mooy Fatiha bi la koy jëlee ci Fatiha bi la koy yomb ci moom. doo ko def li kii li kii defoon Souleymane Faye. lu mu mu ne yàlla yaay yàlla. waaw waaw mu jeex. <laughs> yàlla yaay yàlla. waaw bi dee ñu ngi lay nuyu. <laughs> maa ngi lay fay Pape Matar di la ziar bu baax a baax a baax a baax. Adja <laughs> Moustapha ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu waa waa Louga. maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax Pape Matar di nuyu waa Louga yu baax yooyu le eh, di nuyu ñuy dégloo ci biir réew mi yëpp ak bitim réew. Oh, baax baaxu waa Louga yooyu sax mi ngi mel ne wane waat nañ ko. waaw ci lañ ci lañ dëkk ah. ah parce que di sama benn fans bu nekk Louga quoi sama benn papa. <laughs> ñu koy woowee Pape Bathie Gueye. Mhm. xam déglu moom. Mm-hmm. sama dëkk sama dëkkandoo la di mm. voilà di sama fans en même temps. ah mais bëri bëri bëri na ci ay kii de. <laughs> fans que la Moustapha Diop moom foog ñu teg ko. en tout cas xam naa ne man am naa ay xarit ci dëkk yi ndax les ñaan nee na ma waxal loo xam ne yàlla daa foor. les boo tëddee nelawal bi lii du wax lu ma xamut. <laughs> kooku sa mbokk kooku sa mbokk la kooku sama mbokk la. <laughs> Moustapha maa ngi lay naan Louga ak sens du pardon mi ngi mel ni mujj nañ jéggal euh, sage femme yi nga xamante ni ñoo bon en tout cas ñoom lañ cité ci euh, xale jigéen bu faa doon foofu tudd euh, Soxna xam nga Louga dëkku diine la mhm. euh, te ku ne dëkku diine ne dëkku kilifa mhm. euh, boo demee Louga dafa am ay kër da ngay dégg ñu naan la kër sëñ Baara mhm. waaw kër sëñ Baara fa nekk Euh, kër Soxna Assou. waa kër mhm. Soxna Assou si ñoo fa nekk. Euh, kër maam Cheikh mbay waa kër maam Cheikh mbay ñoo fa nekk. Mhm. Euh, kër sëriñ Abbas Sall. noonu ngay demee ba également dem la famille omarienne bi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca ca Guytan. Mhm. mu am nag kenn ci ñoom muy doomu xalif bi di ku baax lool oustaz. Ah, man xam naa ko bu baax jot naa ko téléphone. ci jamono yële ñu génn di xaritu wal fajir di xaritu particulièrement Omar Kayre. suñu correspondant bi nekk foofu. muy seen nekkin daf ko intéressé lool. Mhm. Euh, te moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jóg. Mhm. Euh, dox ci diggante ñi nga xam ne ñooy personnel hôpital ba. Mhm. ak euh, population yi particulièrement famille wu asu soxna boobule. ndaxte crise boobu li nga xam ne moom moo ci dal waa Louga. mooy waa presse bi dañ presse bi dañu wax ci li dal asu soxna ay fan rek génn ci. alors que daanaka naqar bu. ne ca hôpital ba ak naqar boo xam ne personnel hôpital ba dañ koo nekkee dafa dem sax ba paralyser hôpital ba ak na mu war a doxee loolu nag euh, kilifa diine loolu lay jariñ mu jóg dox ci ay euh, tànk mm-hmm. ngir fexe ba mm, lépp dellusiwaat ci jàmm mm-hmm. euh, ci des deux côtés ñu revenir à de ni ñu koy ni koy waxee mm-hmm. loolu moo tax sax bi ñu waroon jàkkaarloog ak ak àttekat bi li ma ci mujj dégg mooy dañoo dàq àtte bi ba le cinq mais loolu laa ci mujj liir mais teewul àttekat bi moom dafa bañal liberté provisoire ñi nga xam ne ñoom lañ ci tegoon loxo mais lu ci mënti am daal mooy ndox mu sedd ma ngay commencé di ci am te loolu lu am solo la ci dëkk bu mel noonu nga xam ne daanaka oustaz doon na ko wax démb mhm. ñëpp ay mbokk lañ dëgg la euh, koo fa rey yaa koy sa bopp ngay jaale euh, koo fa gaañ yaa koy faj euh, mooy Sénégal gépp mais légalement li ci am solo mooy fexe ba la fa xewoon mu bañ faa fexe mu bañ faa xewati mhm. te man dama jàpp ne la fa xewoon mënul nekk rek responsabilité unique entière et euh, du personnel de santé bi nekk foofu mhm. mais responsabilité wu système de santé bi yëpp la et mhm. loolu mooy la grande leçon bi nga xam ne moom la ñu war a jàng euh, ci li nga xam ne moo xew Louga fan yi ñu génn Euh, Oustaz mi ngi mel ni euh, li ñu doon waxtaanee démb euh, ba tey mën nañ jàpp ni espoir am na ci Sénégal. Mhm. que am na ñoo xamante ni ba tey ji nangu nañu kilifteef nangu nañu aussi mhm. di di jéggale même bu nekkee dañuy traverser ay moments yu difficile. Mhm. loolu Sénégal dafa am loo xam ne ah xamuñu ko parce que population sénégalaise bi boo gisee mu neex a yor. mooy nature seen nature bopp. maanaam dañu gaaw fàtte. Mm-hmm. am na ay am na ay xeet yoo xam ne genre réew yoo xam ne nag loolu mm-hmm. du seen cas mm-hmm. nga xam ne loo leen def wala lu xew dañ koy dugal ci benn mbuus di xaar mel na gëlëm <laughs> gëlëm ni gëlëm di def noonu ñoom noonu lañ mais Sénégal en général dara lu dafay xew ñoom ñu fàtte ko leneen xewaat mu nekkaat lu bees ci ñoom ñu fàttewaat loolu waaye bu fekkoonte ne boole nañu li njëkkoon xew ak lii rek adduna dafay tukki. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu mooy suñu parti particularité ci ci ci côté boobu. mu mm-hmm. nekk loo xam ne dañ ko war a suuxat. kon euh, jéegu yooyu nga xam ne euh, comme ni ko Moustapha waxee kilifa diine yi nekk ci foofu jéego nañu ko. pour jàmm dellusiwaat. nit ñi continuer di dund seen dund ñu leen di faj comme ni mu waree hôpital bi am stabilité mën a servir askan wi. loolu lu ñuy euh, rafetlu la te lu ñuy ñaan la mu avancé dem ba ñoo ñooñu nga xam ne teg euh, bàyyeeguñu leen ñu ñu ñu bàyyi leen. parce que dafa am mm-hmm. yoo xam ne yaakaar naa bu ñu ko dugalee ci mbuusu ndogal moo gën a yomb ak nga koy tuumaal euh, nit. boo ko naree tuumaal nii rek day diis xëy na système bala comme ni ko Moustapha waxee. Mm-hmm. xëy na ñoom dañu ayewoon keroog rek waaye bu keneen ayewoon itam. Mm-hmm. loolu rek moo naroon naroon a xew ndax. Euh, système bi la. Mm-hmm. Euh, léegi loolu yëpp bu ñu ko xoolee daal euh, mën nañu mën nañu jëlal yooyu yëpp daal ñu ubbaat beneen page. Mm-hmm. dund gi continuer hôpital ba ñu gën ko renforcer nag. Mm-hmm. parce que toujours yooyu ay bombe la yoo xam ne. bu explosé wu fii itam dina dina explosé feneen. kon jot na ñu saytu suñu bérébu sa fajukaay yi ba suñu kemtalaayu kàttan suñu doole fu mu mën cee yem ñu ñu ñu ñu def ko ca. Mhm. sinon rek euh, dañuy naan kii aye na tey waaye euh, kan mooy ayewaat lool dafay répété wu fii wala répété euh, fëllaat feneen mhm. kon il faut daal ñu xoolaat def pootum biir mhm. ci côté santé bi seet askan wi ndax jafe-jafe am na ci réew taayu gaa mais fa muy gën a fesee nag mooy ci dëkku kaw yi ñooñu itam war nañu leen gestu bu baax ñu seet nan lañ leen di saytoo ba nga xam ne surtout ñi nga xam ne dañuy dem war a am doom ñi nga xam ne day jékki-jékki guddi am ko am urgence nga xam ne yoon yaag ambulance amul ñu teg la ci sareet yokkaat la beneen feebar mm-hmm. yooyu yëpp daal yaakaar na jot na jot na daal ñu seet suñu système santé bi hmm. ñu gën koo joyanti euh, def ci la ca war pour euh, askan wi mën a xaw a noppalu tuuti ndax euh, li nga xam ne moo war a fajaate bu bu feebaree hmm. ñëppay feebar loolu ñëppay feebar te feebar boobu daf dafay wàllaati en tout cas ku jëra sargal la moom Thierno ah, Cheikh Oumar Bachir ah, Thierno Cheikh Oumar Bachir di doom ci xalif bi ku jàmbaar la ku ku jàmbaar la Pape Makhtar di di hmm. nit ku ku baax lool woyof laa biir nekkee ndakaaru fii ci wakaam lay ne mm. Euh, mm. mais vraiment day day nit ku ku soxal trop quoi mm. moom muy muy ci muy jafe-jafe yi am ci wàllu classe politique beeg yëpp da ciy dox mm-hmm. donc man ça me surprend pas ñu wax ne affaire asu soxna bi moom moo ci sol dàllam mm-hmm. euh, ngir dox ci ngir jàmm am ci mm-hmm. def na lu rafet yàlla na ko yàlla fay non def na lu na lu rafet euh, ndax nag kilifa yi loolu rek moom moo tax ñu am ci ñoom yaakaar c'est-à-dire bu ñu demee ba yëf yi bëgg a jaxasoo ñoom ñu jug sol seen dàll dox ci jàmm jàmm jàmm mhm. dellusiwaat ndax jàmm rek moom moo mun a doxal réew mhm. euh, sànq Moustapha dafa loo xam ne dama ci dama ci am njàngat nga ma sax euh, ci contexte bi sax lu tax mu gën a am solo mhm. euh, boo seetloo ci fan yooyu noonu Moustapha mi ngi koy wax am na sax benn journal bu xëy suba titre que ni waa kër docteur boobu noonu di hôpital lu mu tudd Ahmadou avocatu Louga bi mhm. euh, Saxir Mbaye waaw dañu dañu dañu doon commencé di jël ay nit di leen génne ci euh, hôpital bi ñu ñëwoon di doon faj ñu leen di dàq ci biir hôpital bi di leen mhm. naan génn leen foofu mhm. cest à demoon ba Euh, ñu commencé sax di indi genre confrontation entre médecins yi. wala waa kër docteur ak ñi nga xam ne. moo doon danger bi. loolu nag loolu moo tax ma naan la Moustapha mi ngi koy brosser. Mhm. ci moom eh, mbir mi xewee presse bi dafa concentré wu rek ci mbir mi xew. mais yi nga xam ne mhm. moom la moom la engendré woon yëpp dañ ko dañ dañ ko fàtte woon. alors que loolu dafa nekkoon loo xam ne mi ngi doon lor askan wi nga xam ne ñoom ñooy yeewoo ca Louga te dañuy wax itam ne tombé mooy waral ay gaaf mhm. xëy na tey jii ñooñu ñu teg loxo bés bi loolu di am ñoom ñoo fa nekkoon mhm. tey jii keneen munoon na faa nekk itam loolu dalaala te mm, àll yéwén sax mun naa nekk loo xam ne yow yëgoo sax tiinoo mais fa nga nekk danga cay da nga cay da ngay bokkaale ca ca saag ba mhm. léegi nag dafa am ñetti yoo xam ne nii il faut que eh, ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi ñu bàyyi ko sax gis nga wàllu kër docteur wàllu santé ministère boobu warta nekk ministère politique c'est-à-dire ministère boobu il faut que ñu rocc ko mu génn carrément ci mbiru politique ak yooyu maanaam ministère lay xam boo xamante ni ki ko yor liñ ko sant moom mooy na lijjanti euh, mbirum wér-gu-yaram bi ci réewum Sénégal mhm. loolu lañ ko war a defee ci côté justice bi mhm. noonu lañ ko war a defee ci côté éducation gis nga ñett yi ñett yi il faut que ñu ci bàyyi suñ xel bañ ko def ay ministère politique def ko ay ministère yoo xam ne euh, l'homme qu'il faut à la place qu'il lay doon parce que mhm. ñett yi moom moo yor réew boo wérul doo liggéeyi. ak maa d'accord ak yow. boo amul boo amul wér euh, euh, kaaraange doo doo doo hmm. génn sa kër. Hmm. ah boo jàngul euh, réew mi du jëm kanam bon ñett yi Moustapha. Hmm. il ñu ñu bàyyi ci xam xam bi tey naan la la la fonction de ministre dañuy wax ne elle est éminemment politique. cest dire que ministre. baax na kuy de politique xeex ci politique xam réew mi xam ni muy doxee occuper fonction ministérielle dara newu ci mais li ma d'accord ak yow trop trop bité mooy dañu toll ci réew moo xam ne dafa xam yoo xam ne dañu war a def lu ñu mën pour détacher ko ci wàllu politique. parce comme ni ñuy defee politique ci réew mi baaxul. bu fekkoon baax na. Euh, un ministre de la santé nekk kuy du yàq dara mais comme ni ñu defee ci politique ñun ci réew mi. dafa mhm. salte dafa bon. Mhm. que bu ma nekkee man à la tête d'un ministère damay fexe ba samay militant ak ñeneen ak ñeneen dugg fa bu ñu mënee bu ñu mënul baax na moo tax ñu waroon a fexe ba juboo la classe politique Sénégal ak mhm. sénégalais sax jubo ne ministère yi comme bi nga cité sax santé justice intérieur ak éducation ñu ne par exemple ces quatre ministères là. nañu fexe ba politique bañ koo fonctionner bañ koo yore mhm. maanaam ku koy occupé mhm. mu nekk ñoo xam ne sénégalais yëpp dañuy juboone mhm. ñii ñoom c'est bo war nañ faa mën a ne nga xam mais yaa ngi fàttaliku bi assan Diop nekkee ministre de la santé Sénégal Assane Diop euh, mi ngi bokkoon ci syndicaliste CNTS yi euh, ñoom Madia Diop ci participation responsable la la la la CNTS amee quota du gouvernement assan Diop dugg euh, nekk ministre de la santé mais Assane Diop c'était pas un des presque ministre de la santé la woon boo xam ne nit ñëpp dañoo ma woon la santé mhm. la muy def mën na ko xam na ko mhm. c'est la même chose bi Ousmane Paye nekkee ministre de ministre de euh, des sports mhm. ah, Ousmane Paye ne woon def ministre des sports ñëpp euh, c'est vrai que Sénégal daawul gagné et tout mais sa gestion du ministère moom acteurs yi gisoon nañ seen bopp moo tax ma yaakaar ne bi tey dama d'accord lool ak yow dañu war a waxtaan suñu biir juboo ne comme ni ñuy juboo par exemple ci entreprise ne fonction yi diw euh, diw diw ñoo ko mën a yor ñu ne fonction yi ak bi lay jox ay politique ba jëm ba jëmmi jamono mm-hmm. foofu foofu ngeen laal noonu mooy feebaru Sénégal xam nga mm-hmm. ministère yépp nag noonu la war a mel mm-hmm. waaye bu fekkente ne boo joxee saaku ceeb nga calculer ñaata ñaata ñaata militant <laughs> ah. boo joxee tàndarma égal ñaata militant ñaata laa dajale loolu problème problème la euh, dañu waroon def fonction yi mu maanaam wolof dafay faral di wax ne boo amee fas. Mhm. dénk ko ki bëgg fas bi mais boo ko dénk sa xarit. Mhm. boo ko dénkee euh, sa xarit fas wi day yooyu waaye boo ko dénkee xaritu fas wi fas wi day suur. ah bu ñu demee ba jël gynécologue jox ko li nga tudd euh, léegi mi artisanat dafay dafay poser problème. waaw mais xam nga xam nga man. Euh, aw aw ma problème que gynécologue yore artisanat. mais am na ñu ko gën a yeeyoo. waaye bien sûr am na fa parce que parce que parce que le ministère. dafa mhm. am bul fàtt dafa ay techniciens. yoo xam ne bu Pape Makhtar ñëwee fa la leen di fekk su demee bi tey ñëw fa la leen di mhm. fekk. Mhm. ñooñu ñoom ñooy le ministre finalement il est plus management qu'autre chose. absolument c'est-à-dire que même bu fekkee ne secteur bi nga nekk xamoo ci lu bari sax soo newul euh, am ay nopp di déglu. di déglu. man nga def un bon ministre nee la Assane Diop nekk ministre de la santé te mm-hmm. kenn du ne ma ci wàllu santé la jóge woon mm-hmm. ak ñeneen ak ñeneen ñeneen mm-hmm. na loo xam ne liggéey ñun mën a cité mais c'est juste des exemples que je donne gis nga li oustaz wax te mu am solo loolu que ne ministère yëpp noonu la waroon def gis nga Pape Matar France seen président bii dafa toog dafa toog xool classe politique France. Mhm. gis ne bari nay tappalekat lool. Mhm. Mhm. mu ne taxal ma créer lu ñu tuddee la république en marche. yaa ngi dégg. dem jël les meilleurs fils de France. yoonam nekkul ci parti bu ñu bokk. ñii bokkuñu ci parti mosuñoo politique ñii ay xale yu ndaw lañ mu boole leen. ñu ne bu gañee il va gouverner avec kii mu gagné dem. jëli waa parti ñoom Sarkozy jëli waa PS jëli ña il a pris les ñi nga xam ne dafa jàpp ne c'est les meilleurs. yi mhm. ko mën a accompagner pour mu liggéey. Mhm. mu toog ak ñoom di liggéey. te mhm. noonu la gouverner France ba nar a entamé nii euh, enfin bay entamé euh, euh, donc tey jii man gëm naa ne président Macky Sall mënoon na ne. c'est bien comme disait am na ñoo xam ne da ngay dem ak ñoom wuteeg ñoom pouvoir. mais mënoo gouverner ak ñoom. je a des gens yoo xam mais mais mais fonction ministre <laughs> man na ne man président Macky maa jiite Sénégal gépp je choisis les meilleurs sénégalais. ci fuñ soxlawu ma sax ku bokk ci parti ku bokk parti. dama xam ne santé bi nit ñi ñu ngi ciy dee dee goo xam ne mënatul wéy je vais prendre le meilleur mais pas Matar dégg keroog bi fi ay dañ boo ñëwee salon d'honneur. waaw. bi nee na bi Eva Marie Coll Eva Marie Coll moom nekk na ko suu Wade nekk ko suu Macky Sall ah. Eva Marie Coll Seck c'est c'est euh, on dit une du sérail non ah. homme du sérail euh, ci milieu ba la nekk

Mmh. mais billaahi mais imaginer woon suñu Covid bii. Mmh. ñu ne woon génn nañ ci Covid assemblée taxaw ne ñun de chaque semaine. Mhm. ministère de la santé daal ñu yónnee euh, compte rendu bi. Mhm. ne ñu lii lañ dépensé. Mhm. ñii ñoo ko am ñii ñoo dee ñii ñoo tëdd ci l'hôpital yi lii moo manqué. lii moo matul mais loolu assemblée bu ko am. mais di nga liggéey liggéey. mais bien sûr mais bien sûr xam nga xam nga Moustapha li nga wax noonu euh, nangul naa ko njiiti réew que. mën nga jiite réew mi pour autant ñu ne xam nga lii xam nga lee xam nga lee mais pour ministère même boo ci am tuuti xam a xam nga tey ji su ma yore benn ministère boo xam ne xaw ma ci dara ma jël la mm-hmm. yow laa yaakaar mais saa yi bu ma la mer looyee nga lalal ma xam ne yow lii mu lay ani tegul ci yoon di nga ko mën a dindi teg fi nga xam ne mooy mm-hmm. mais boo ci xamul dara loolooy métti tey ji mun nga nekk benn manager boo xam ne peut-être li ngay manager mm-hmm. amoo ci xam-xam mais peut-être ñi ngay liggéeyal ñu loyal di di di teg liggéey bi ci yoon te gëm yàlla mais bu fekkee loyalul rek man d'accord na ak yow que ni fii ñu toll nii fi Sénégal toll nii fi Sénégal toll nii ak euh, difficulté ñam ci santé mhm. man gëm naa ne mën nañu euh, dañu war a jël un homme euh, du système mhm, absolument ku xam le système sax mhm. dénk ko ko ba jamono soppee benn professeur ci médecine mais mais professeur bi ma dégg keroog muy wax ci wàllu

waaye man des fois je me pose la question sax est-ce que ñun mos nañoo am président bu bëgg suñu réew. <laughs> non non c'est question parce que xam nga ko posé parce que parce que tey man lu ma xam-xam am xam-xam mais président Macky Sall mais li ñuy wax nii xam na ko. mais bien sûr xam na ko moo ñu xam na loolu. mais lu tax léegi mu xam ko te defu ko. moo tax des fois ah, may wax mais bul <laughs> bu ñuy demee dañuy def quota. c'est-à-dire que dañu yor système bu bon boo xam ne. voilà boo xam ne mënoo ci dara yow mii sax mhm. boobu mooy intégré quota bi ngay tudd. Mhm. mooy mooy intégré leneen. Mhm. yaa ngi fàttaliku bi euh, Ablaye Wade doog a nekk président de dañu name woon ministre des finances waa ji nga xam ne defe naa léegi moo nekk banque mondiale xaw ma baat Matar Diop je pense noonu la tudd. Mhm. waa ji c'est un excellent financier. Mhm. vraiment amul lu ñuy wax ci kook waa ji nekk ministre ay semaine mhm. ñu ne dàq nañ ko. ba ci aji bu sumaare waaw ñu ne dàq nañ ko coow ne kur lan moo tax fekk waa ji ndekete <laughs> li gars yi nettali. mooy Ablaye Wade dafa yónnee laaj laaj laaj xaalis. waaj na du ko def waaj na du ko def tey jii nii y a des yoo xam ne bu ñu nekkoon au ministère de la santé tey xëy na dina am lu parti bi bëgg duñ ko def lànk la ñuy def exactement am na ñoo xam ne tey bu ñu nekkoon ministre de finance mm-hmm. dina am lu lu parti bi bëgg wala lu président bëgg ngir defal ko parti bi mu lànk du mm-hmm. defe nga ne dans un pays sérieux danañ la wax ne euh, un ministre de la des finances taxaw na ñu ne euh, di réew mi jaaxle fan la jëlee xaalis ñu ne ko parti au pouvoir tabax nañ permanence buy jër xaw ma nangami milliards mm-hmm. yu mel noonu. Ah, euh, euh, nga waa euh, ji. boo technicien mu leeral mi. taxaw ne président moo ma laaj li ma bañ. moo tax technicien un de de de su lan la fi lan la fiy bàyyi. am na yoo xam ne su ko président bi yóon demandé ma bañ. Hmm. malheureusement nag suñ président yi dañu nekk président ba pare nekk chef de parti. léegi sax dañ ci yokk leneen. mooy da ngay nekk président chef de parti chef de coalition. Hmm. chef de coalition mooy lan mooy quota. Mm-hmm. séddale. absolument nekk président sédd waa PS ñu jiite Mhm. affaire bala ca kii ba xaw ma nu tudd. Euh, mhm. au conseil des collectivités territoriales bi ñu dénk sama tànta. Mhm. Euh, jël euh, C C sa e xaw ma jox Idrissa Seck. jël assemblée nationale. jox nu mu tudd Moustapha Niasse jël gouvernement bi séddale. démb dégg nga les gens yi ne ci tourisme. nee seen ministre bi yore tourisme. il a tout sauf un du tourisme. Alioune Sarr. parce waa ji directive yi ko Macky Sall joxoon yépp ngir mu war a dimbali hôteliers yi ak ñeneen pour que tourisme bi taxawaat xam nga lu tax parce que Moustapha Niasse ko fa teg. coalition la. Hmm. mais est ce que ñu jël koo xam ne maanaam nit koo xam ne bokkul ci parti bokkul ci dara dafa taxaw laaj réew mi pour ñu am ci moom confiance ñun loolu dina yomb Sénégal. mais est ce que ni ñuy demee au pouvoir nii. nga xamante ni dañuy sentir benn redevabilité. waaw coalition nañuy demee bu ñu faloo. aussi il faut ñu jël Moustapha Diop. kenn ku bokk ci parti il faut que ci Mamadou Biteye il faut que ñu jël Oussa euh, Assane loolu moom mais mais mais booy jël sax nga jël nga jël nga jël mais mais souvent parti yi mm-hmm. soo laajee boo demee PS par exemple dañuy tànn Aminata Mbengue ak Moussa euh, nu mu tudd euh, Serigne Mbaye pour ñu siyee ci gouvernement parce que ñoom ñoo déggal mm-hmm. euh, Ousmane Tanor Dieng yàlla ko mm-hmm. yàlla yërëm temps man yaakaar naa ne les seuls partis yi échappé ci loolu mooy les partis de gauche am na ku may envoyé message léegi di ma fàttali Yorodé bi mu nekkee ministre du travail de ah, l'emploi mais Yorodé c'était un excellent ministre ñëpp ko waa LD seen quota la woon. mais il a il a job Seydou Sy Sall bi mu nekkee ministre de l'urbanisme euh, il a fait le job. Mm-hmm. te quota waa LD la woon. Mm-hmm. donc mais malheureusement yenn yenn ci parti yi euh, doo doo doo doo comprendre mais nag Pape Makhtar loo ci ma ci dégg. quota boobu euh, bu ma dégg démb mais waa ji. dama reeba soon mais waa jooju moo mën a wax dëgg lu wax waa ji benn waaye lay envoyé message uh-huh. waa ji daf koy wutloo defe naa lu mel ne passeport uh-huh. mu ne ko yéen Sénégal yéen a ngi di jënti passeport mm-hmm. état bi di leen defalal passeport te du leen jëriñ dara duul def ko seen poste toog <laughs> amalu leen benn njëriñ passeport boo xam ne yow mënoo cee dem ci menn ah, réew mu ne ko gis nga France gii doomi France yi ah. buñ bëggee ñëw Sénégal duñ tàggu sax seen papa ak seen yaay mm. dañuy jël seen passeport rek sol seenu culotte <laughs> wàcc aéroport yu njas dem doxi seen soxla mu ne ko mais comme yéen depuis Sénégal indépendant ba léegi. yéenay tànn ay président yu leen di noot ngeen lànk kontaan ne nañ ko ne duñu noot kon ne leen rek ñu leen di noot rek. Ah, ah. amul benn problème mais waaj dama koy déglu dafa ree ba sonn mais wax waaju kookoo mën a wax dëgg. dëgg la daal gaay gaay duñu génn Sénégal. waaw ah, mais bëgg a tukki fenn ngeen du dem. waaw ñu daal ñun daal dañu am ay lëj-lëj yoo xam ne il faut ñu lijjanti. et puis mu boole ci ne Sénégal hmm. leen rek a fi am. Hmm. ku juddu ñu ngénte ku dee ñu dëj. waaw rek ah ñaar yooyu de. Ah, mënul ñàkk waaw. waa ji dëgg ko rek la li mu wax de. rek seen réew mi loolu rek ko defee leen ba pare ba pare bu élection ñëwee ngeen voté laat ñi leen ñi leen di lor dem leen rek. waa waajee ñëwee dëgg. <laughs> ma ne ah, ah, moom noonu la mel kenn mënu ci. mais est du nekk tamit bu ñuy wote ji yaakaar la ñuy am ci nit kooku nit kooku dem ba yegg nga wan ñu leneen. ah gis ñu fi yaakaar waay ah? bàyyi ñu waay. non non attends attends Pa fii bu ñuy wote xëy na dañu am ci nit ki yaakaar ñëpp ne moom la. yaakaar est-ce que nañ ko commencé ci Abdoulaye mhm. dañu doyaloon ci Abdou Diouf ñëpp ne am nañ yaakaar ci Abdoulaye Wade ñëw Abdoulaye ñëw def fi lim fi def liggéey feewu mandat Abdoulaye nu mu demee na dem na dem nga doon dégg. Mhm. ñu ne kon nañ indi kan président Macky Sall. Mhm. président Macky ñëw gars yi may ko battement en ah, mhm. un an deux ans ah. léegi lan ngay dégg na fi jóge kii ak ñuy rey. léegi bu ñu yaakaaraatee keneen mu ñëw su defaatee noonu est ce que nekkul ne tout le temps. noonu xam nga xam nga xam lan moo ñu. foofu laay waxee quoi xam lan moo ñu dar. Euh, dama jàpp ne ñun dañu exigeant wul. cest à ki nga war a dénk réew. Mm-hmm. période de grâce dafa bëri ki nga war a dénk réew. da nga mm-hmm. cee war a exigeant lool. Mm-hmm. na ma yàlla baal da nga ci war a soxor. c'est-à-dire booy tànn ngay jox réew. réew. da cee war a soxor. mais benn waay jóge fële bokkoon ci ab laay Wade. Euh, gouverner pendant x années ak Ablaye Wade. ba ci fin wu Ablaye Wade mandat Wade mu génn. ñëw taxawal parti wër Sénégal ba mu daj ne xam naa seeni problème ñu ne am nañ yaakaar ci moom nañ ko jox. ba pare jox koo ba pare dem toog croiser suñuy bras ñun toog di mu jeex mu jeexal benn mandat ñëw jox ko beneen. Mhm. mais bi tey lu ñu naqari ñoo ko teg. mais bien sûr man dama jàpp ne cest à dañu mhm. war a exigeant xam exigeant mooy lan. Mhm. mooy su ma su bi taxawee ak Pape Mokhtar moo war a tànn kenn. su ma dee jël at sax naa jël at di leen observé. di xool. wurumaa juum. wala boog su ma juumee ci tànn benn yoon. lay doon du ñaar mais ñun fii la toog. sengoor ak Mamadou Dia taxaw ñu jël Senghor. toog. Senghor ak Ablaye Wade taxaw ñu jël Senghor. toog. Abdoulaye Wade di dem ba mujj ak ñu jël Abdou Diouf teg ca. Mhm. ak conditions yi Abdou Diouf ñëwee ci pouvoir. Mhm. Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf xëccoo plusieurs fois. Mhm. ñu maintenir Diouf ci nguur gi ba pare nag fu toogee di jooy. naan ñi ngi jooy. te moment boobu fu ab fu PS génnee ak seen vax bu verte boobu. Lagos bu verte boobu ñu daan jox suñu yaay yeeg suñu papa yi. <laughs> nit ñi daw topp leen nit ñi daw leen. di ko sol dem di voteeli Abdou Diouf. bi xale yi màggee ba mu maar leen ñu jël Abdoulaye Wade teg ci bopp nguur gi. boye naam bo boonaam def na li mu war a def. Mhm. mais bañ ko fi war a jëlee ñu jóge ko fa. Mhm. mais à partir de cet instant là en 2012 ñu élire Ablaye Wade laa jàpp ne la jeunesse sénégalaise en particulier ñoom ñoo war a exigeant lool gis nga. ma benn yërmande ci président de la République. Mhm. Ah, ma ci benn yërmande parce que koo xam ne yow ñun ñoo la fal benn. mais vraiment te bu ñu doon wàññi téeméeri Sénégalais yi gën ci réew mi yow doo ci bokk. du ci ndey du ci juddu du ci bàyyi du ci dara. du ci jikko du ci dara mais malgré tout ñu ñu fal la. yoral la sa location di ko fay. Mm-hmm. yoral la sa ndox. Mm-hmm. courant boo feebaree ñu faj bu sa doom feebaree ñu faj bu sa jabar feebaree ñu faj seen famille ku feebar ñun ñooy faj mhm. ba pare di leen jox alal ju jeex te duñ la laaj benn compte mhm. mais kooku ñun bu ñu amee moom ci moom yërmaande ñun on a des problèmes mais kooku dañu war a exigeant ci moom kooku moo war a nekk nit koo xam ne franchement gis nga li nga wax ni yëpp kooku moo war a njëkk a wax loolu boppam c'est-à-dire que pour mu nekk nit ku doo ko mun a doon soldaaru askan wi oustaz pouvoir gis mhm. pouvoir boo gis pouvoir gis pouvoir a contre pouvoir boo gis pouvoir karate mhm. te pouvoir bi gën a am solo ci réew mooy pouvoir bi nga yor yow man ma yor ko mhm. ki ñuy déglu yor ko mooy le pouvoir du peuple ce pouvoir de sanction là mhm. qui fait que tey bu ñu falee président tey jii ñetti weer après ñu def élection locale xaw ma législative ñu gis ne président bii lam ñu doon dikk yaa trois mois ak fii mu ñu jëmale baaxul ñu tànn beneen beneen assemblée tegal ko ci wetam. man nag euh, sama sama giseen ci ñooñu falu sax mais xoolal France bi ñu falee Macron dañu fal Macron 30 euh, minutes après ñu génne benn sondage pour laaj français yi nan lañ gisee assemblée bii di ñëw. 63 mhm. pour cent des français xam lu ñu wax. assemblée Macron wuru fa majorité. Mhm. dañ koy dénk te ñoo ko fal 30 minutes avant. mais est-ce que benn pays sous-développé. pays sous-développé. mën na réussir loolu nga wax xam nga tey boo demee France waaw boo demee France peut-être c'est un hmm. pays développé ba mën nañ loolu hmm. mais un pays sous-développé tey jii par exemple comme ku mel ni bi tey hmm. ah, euh, xëy na ngoram lay sàmm ba du dugg ci mbaal mi mais ñu bëri ñi nga xam ne ñoo ñoo gis ñu fal nit mu toog continuer di def loo xam ne vraiment arrangé wuñu te ñu ngi ko fay bàyyi di ko falaat c'est parce que am na ci suuf loo xam ne peut xëy na mi ngi ko dimbale moo tax ma ne est-ce que un pays li metti ci loolu waaw mooy ñi nga wax ne ñooy fal président. waaw wala wala ku ma doon même mhm. maire ah. mhm. gis ko muy caxat caxatee di yàq di yàq. Mhm. wala na ñu bëgg mu defee ko defewu ko. ñu continuer di ko fal ñi ci ñi koy falaat jariñoowuñ ci. dëgg la. ay ay 2500 lañ ci am ak saako ceeb. la nañ ko dëgg rek la. jëriñoo wuñ ci. ñi ciy jëriñoo dëgg-dëgg buñ la rombee duñ la nuyu. dëgg xam kañ lañ lay nuyu. bu élection xeeñaate jërëjëf ñu ñëwaat mais bu waxee noonu jërëjëf acca beneen mbir bi bu ma bëgg ñu waxtaanee ko mooy mbirum accident yi bëriwaat na de. Euh, démb am na ñeenti nit ñu ñàkk seen bakkan ci euh, yoonu mbuur bi bërki démb aussi dégg nañu huit personne aussi ñu ñàkk seen bakkan euh, bi tey accident yi ñuy naan six cent personnes dinañ si ñàkk seen bakkan par année mais dafa mel ni dans une indifférence totale dafa mel ni dañ ko soofantal dafa mel ni ñiy dee ci accident yi daal ñiy dee ci Covid yee leen gën wala mhm. dafa ma jaaxal daal parce que 600 personnes di dee par année wala plus de 600 personnes. Covid de reyul loolu. waaw Covid reyu ko mais déggoo ci dara daal loolu ay prévention ak ay yooyu dem naan dañuy communication ak. te nee nañu seen communication beeg seen sécurité routière bi mu ngi coûté état du Sénégal 163 milliards par année. c'est-à-dire xam nga man que li nga wax ni lu lu lu leer la dafa mel ni dañ ko soofantal. am hmm. na benn asso buñ ci doon def comme asso bi ñu def ci wàllu euh, covid bi buñ ko ci hmm. defoon peut-être hmm. xëy na du ma ne dina dëñ mais dina wàññeeku parce que nag dëgg la bu ñu demee ci côté euh, côté côté côté diine moom côté yàlla dañ naan xëy na ndogal la bu yàlla teg waaye yàlla yàlla bay sa tool c'est-à-dire nag ñun ñoo war a jël suñu précaution waaye li may jaaxal mooy accident yi lan la tali bu bon la wala comportement chauffeur la wala défiance oto yi la c'est-à-dire donc wala nit ñi ñoo euh, ñoo seen xol yee xat cest à ñeenti aspect yooyu lañ war a njëkk a xool ñeenti aspect yooyu buñ ko buñ ko lijjantiwul accident yi xoolal fii ba l'an 3000 mënul wàññeeku parce que ñeent yooyu dafa am solo parce que tey bu fekkee sa oto baax na ngay daw ci tali baaxul. Mhm. yaa ngi ci danger yaa ngi ci danger. Mhm. ba baaxee sa oto baaxul yaa ngi ci danger. Mhm. su ngeen bokkee tali bi yéen ñaar te kenn bëggut a may sa morom. yéen a ngi ci danger. c'est-à-dire yooyu yëpp dafa ñëw mu mu mu mu mu dajaloo quoi.